bu nekk xamoon na ko ci biir làmb la mu ca daan jëf. doomu yaay noonu doomu pikin mhm. tey boo demee pikin fa laa jóge léegi. Mhm. pikin gépp nga fa. di ko mhm. ñaanal. Euh, may jaale ki nga xam ne nii mooy yaayam Mareetu Fall di jaayal ki nga xam ne nii mooy Seex ñaa moom it di rakkam. Fallu tamit nekk fa gérer groupe ndongo groupe jàmm mu rafet lool. léegi maa ngi dégganteeg moom ndax bu nu wàccee fii dañuy dem. ci émission bu mag boobu nga xam ne nii mooy ngéwél gi 221. di nuyu tamit kilifa diine yi kilifa aada yi. di nuyu aussi waa làmb ndax démb boo xoolee làmb nag dekki na. non te tegal sa baaraam foofu. dinaa dinaa ñëw foofu. Eh. léegi dañuy ñëw ci sa diggante ak Fallou. noonu uh-huh. euh, non euh, rakku ndomb la maam Cheikh. si waaw gis naa ni yéen ñaar am ngeen relation bu xaw a kii nii. Mm. Euh, sa diggante ak moom. waaw maam Cheikh dafa nekk koo xamante ni xale bu baax la. Mm-hmm. xale la boo xam ni ndongo ñi mu daan àndal ñëpp bi mu demee moom daa topp tànk yooyu ñëpp la amal jàmm. Mm-hmm. xam nga nit dina fi jóge mm-hmm. tey ñi nga xamni ni ñoy ay mbokam wala ay faté ay mhm. mais il est toujours. Mhm. modeste ci côté mhm. bobu boko téléphone sax. day li def mais nak nongo magam non la meloon. yal na na def la Sénégal. un peu partout dans le monde. koy ñaanal. ñu njëkkee ko ca Pikine tey boo demee ñi nga xamante ni doon na liggéey ak ñoom ay Baye Demba Seen ñoom ñëpp vraiment ñu nekk Pikine di ko ñaanal te itam rakkam ji li ma la wax rek mu jëw puso bi mu réer suma rakk di ndaanaan doon ndaanaan yarul lool xam fi mu bokk di doomi géwél mën a way biir dinañu ko dalal ci géewu ndaanaan waxtaan ak moom ci ay projet am mhm. sànq dama dem ba naan ko nanu dem télé ba ñu am lu nu waxtaane ci ndongo mu ne ma foo ma woo mu wuy la waaye tey du ma mën a wax ci ndongo ndax sama xol dafa fees bi ma gisee Pikine gépp génn mhm. baaba meng ñu koy nuyu mi ngi fa mhm. njoogu mbay mu si jama kumba seen mi ngi fa Yves Niam mi ngi fa Pape Diouf sax mi ngi fa ñoom ñëpp ñëw ñëw rejoindre Ndongo Lo ndax moom ndaanaan la woy na lu ne ndax dix-neuf dix-neuf euh, mille neuf cent soixante-quinze la si àdduna loo nga dundul lu bari waaye mi ngi mel ni ku def cent ans de carrière li ko ko mayoon nag mooy fitam jàmbaaram xam ki mu doon doon way bëggoon ay way kon Sénégal jooy na wéet léegi bu ko defee tey euh, ñu jógee foofu noonu ñu ñëw ci làmb ji nga xamante